ci seen beneen actu du jour ami internet yu 24 actu bàkk ba jibatina la ñuy waxtaane tey mu di comité régional de développement euh, bu grand màggal de Touba démb ci àllarba ji amaloon nañ nag ab ndaje ca gouvernance euh, bu njaareem ba porte parole bu xalif général des mourides di Serigne Bassirou Abdou Khadre dikk ci ay aspect yu bëree bëri euh, jëm ci màggalu ko Touba waaye li gën a insister rek mooy l'importance bi màggal gi amee mu ne mooy jour bi gën murit yi ba ki nga xam ne moo di sëriñ Abdou Lahad Mbacke daan na wax ne ñun murit mooy suñu fête de l'indépendance daan na si toftalaat ne nekk na événement bi gën a yokk économie réew mi. ci jamono ji ñu nekk ak mbas mi màggalu 2020 bi ñu joxe ay ndigal ngir taalibe yi respecté li nga xamante ne ni nag moo di mesure barrière yi kër docteur digle lépp jëm ci xeexum jàngoro ji nag di coronavirus moom Serigne Bassirou Abdou Khadre daal dinay wax ne bépp taalibe buy màggal si na dëppoo ak mesure barrière yooyu le maanaam attaque masque ku ko mënul naka nga daal di jël li nga xamante ni moo di kaala lépp rek ngir xeex jàngoro ji nag di coronavirus waaye nag boobu leen ndaje nag dafa daal di jur am mer jóge ci ki nga xamante ni moo di gouverneur ba daal di jëm ci taskatu xibaar yi ndax ñoom taskatu xibaar yi nag démb jotuñoo dugg nag ca boobu les salle ndax ki nga xamante ni nag moo di bi nangul benn yoon ñu dugg ca boobu les salle ñoom taskatu xibaar yi nag la xamle moo di kii di Serigne Bassirou Abdoul Khadr Mbacké moo leen invité ngir ñu daal di ñëw assister boobu leen ndaje mais gouverneur bi nanguwul benn yoon ñu dugg naka ca boobule saal la ca gën a métti rek mooy démb ca diwaanu Diourbel da doon taw taw bu métti ba ñi nga xamante ne moo di taskatu xibaar yi dañ doon toltalaan naka ci garab yeeg fu ne ngir mën a seetlu boobule taw ñu amee naqar nag ak méttit lool ci seen xol ñoom taskatu xibaar yi ca démb ca ndaje moomee amoon foofee lee ah ca njaareem ñu wax ci leneen mbas mi mi ngi woy di lëmbe mim réew waaye teewul Sénégal di ñàkk ay monument ay référence ay kilifa yoo xamante ni kenn dootu leen fàtteeti ci mim réew ci atum 2020 bi faatu yi tegloo lool mu nekk at mu kenn dootul fàtteeti ndax ci la ñàkk ki nga xamante ni moo di ah, Serigne Pape Malick si nekkoon porte parole bu xalif général des Tidianes daal ciy teg Serigne Abdou Aziz Fall Serigne Ahmed Tidiane Niass Seyda Mariama ñas ak Serigne Daga Diop ñu xàmmee woon ko lool ci di waxtaane Cheikh Ibrahima Fall Moustapha Sourang ñu bëri xàmmee woon ko bu baax ci langu politique gi ci jamonoy Abdoulaye Wade ak ki nga xamante ni moo di Pape Diouf journaliste sportive ak ñeneen ak ñeneen yàggaatul dara ñu daal ci teg kii di Serigne Saliou Ndiourul ci beneen wàll bi ay agression ak ay rey yu ñaaw di wéy di am ci mim réew ñu jàpp si benn douanier bu faat doomam bu jigéen bu am lu toll si juróom benni at ca Mamel ñu toftal ca beneen lakk gu méttee métti fële ca états ba faat juróomi doomi sénégalais ba dinañ leen jébbal seen borom niki tey ci alxemes ji te cimetière bu yoof ñuy ñaanal ñëpp ñu fi jógee suuf oyof si seen kaw te suñu boroom xaare leen ca aljana naka ya gën a kawe ñu daal di koy jeexaleeg naka benn mbir mu doy waar benn réseau bu doon jaay ay yàpp ñu daal leen di jàpp fële ca diwaanu yaraax ña leen jàpp rek yoolee moo leen daal di teg loxo ndax lan dañ doon jaay li nga xamante ni nii nag moo di yàpp fas bañ ubbee nag seen réfrigérateur yi lañ fa fekk rek mooy ñaari boppi fas yoo xamante ne nii couleur ba dafa daal di weex bañ wéyalee enquête ba nag lañ ca jot a xam mooy ñoom nee nañ benn marabu moo leen commandé euh, ñaari bopp yooyu leen ndax daf koy soxla ci benn cérémonie religieuse bu muy def fii ci Sénégal te daf koy soxla ngir di ci def li nga xamante ni moo di euh, mystique loolu polis police ma ngay def liggéeyam lépp loo xamante ni ruusandi waat na ko jëm ci boobule mbir dinañ leen ko toppal ba mu leer naññ lii rek moo fi ruusandi woon ami internet yi dig dajalay doon ba ëllëg ak jàmm